إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك ما من خير إلا دلنا به وما من شر إلا حذرنا منه وصلى الله وسلم على نبينا محمد wa alihi wa sahbi ajmain mbokki jullit yi mbokki daarul birri tv assalaamu aleykum jamian wa rahmatullahi daarul birri tv mi ngi del si waat ak ci émission yi muy faral di am ak yéen ci baytul muslim aju ci lu jëm ci weeru koor suñu juróom ñaareelu bind day tënku tey ci alqada muy fay koor dars bi ñu génnee waxoon nañ leen li nga xam ni mooy yàqu koor tey ñu bëgg a jëm ci li nga xam ne su koor yàqoo nit ki daa war a fay la mu war a fay nag moo xam moom miy dund yoroon ko te wér mën koo fay mën na koo fay walla sax mu namoon a fay te génn àdduna njabootam fayal ko ko jëlee nañ ci abdullah ibnu abbas radiyallahu anhu wa ardaah mu nettali xadis boo xam ne ñëw na ci buxaari ak muslim mu ne jaa rajulun ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasul allah inna ummi maatat wa alayha sawmu shahrin fa aqdihi anha qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam naam fa daynu llahi axaqu an yurda axaqu an yuqda rawahu buxaari wa muslim abdullah ibnu abbas ne benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ay yow ki yàlla yónni yonent bi ne ko naam mu ne ko sama wayjur bu jigéen dafa génn àdduna te amewoon na boru koor lu mat at ndax ma fayal ko ko nee yonent bi tontu ko ne ko naam waaw mën nga ko ko fayal ndax borub yàlla moo gën a yey ñu fay ko maanaam yaayam dafa amewoon bor kon ki amewoon boru koor su gaañoo njabootam jabar su gaañoo jëkkër mën na ko fayal koor kazalika yaay su gaañoo doom mën na ko fayal koor kazalika su gaañoo doom mën na ko fayal koor moo tax yonent bi ne ko fay bor yi day li ci gën a jaadu mooy borub yàlla taala wa su fekkee nag koo xam ni dafa dog ci weeru koor te tay ko maanaam dafa tay dog ci weeru koor saxul jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne nit ki dana fay kafaara comme ni ko yenn malik yeey di waxe amul benn hadith bu ci ñëw bu biir nit daal bu fekkee dafa tay dog moo xam lekk la walla naan la fay rekk lay def waaye kafaara bokku ci lan moo tax ndax li mu def tey dog bi bàkkaaram màgg na lool fayam mën na koo fay waaye kafaara du ci war kon dafay war rekk mu tuub te dëggu ca tuub ba ndax mën amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha kon tey na lekk tey na naan day fay waaye kafaara waru ci nekkut wareef jëm ci moom kafaara fan lay ware bépp boru koor walla koor gu yàqu ñu war koo kafaara bu yeboo nga jàpp ni benn mbir dong la muy ci tey sëy nit ku sëy ci bëccëgu weeru koor kooku day kafaara jëlee nañ ci abu hurayrata radiyallahu anhu wa arda mu ne jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal yaa rasulallahi halakt qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ahlakak qaala waqactu ala imraati fi ramadan qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam hal tastatiu an taatiqa raqaba qaala laa fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam hal tastatiu an tasuuma shahrayni mutataabicayn qaala laa fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa hal tastatiu an tutcima sittiina miskiina qaala laa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam fajlis fa jalasa fa ata nabi sallallahu alayhi wa sallam bi irqin fihi tamr qaal fatasaddaq bih fa qaala rajul maa bayna laabatayha afqara minha afqara minna qaal fa daxika nabiyu sallallahu alayhi wa sallam xata badat anyaaba qaala xuzhu fa atcimu ahlak rawahu lbuxaari wa muslim abu hurayra ne dafa am waa ju ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent bi man dey alku naa yàqu naa def naa musiba yonent bi ne ko déet waay alu sabab sa alkone waa ji ne ko dama sëy ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor dama sëy ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor ne yonent bi ne ma ndax mën ngaa goreel jaam bu jigéen ne waa ji na yonent bi ah déedéet aw ko mënuma ko yonent bi ne ko ndax mën ngaa toftale ñaari weer woor ko te mooy rey shahrayni mutataabi'ayn ne waa ji ne ko mënuma ko yonent bi ne ko ndax mën nga lexal juróom benn fukki miskin ne waa ji ne mënuma ko yonent bi ne ma toogal ma toog yonent bi ñëw indi benn këll bu ñu def tàndarma ba mu fees ne ma jëlal tàndarma bii nga saraxe ko mu taxaw taxawaayu kafaara comme amooloo goreelee jaam mënoo woor ñaari weer mënoo lexal juróom benn fukki miskin kon jëlal lii nga saraxe ko waa ji ne ko déet yonent bi diggante ñaari montagne yi tiim Medina amul benn kër gu ñu gën a ñàkk gën ñoo soxla lii nga joxe ne yonent bi ndeysaan muuñ ba bëñ yi feeñ ne ko kon jël ko nga jox ko sa waa kër mu nekk sa kafaara maanaam dellu ci yow ñëw na ci beneen riwaaya ci sunan abi daawud yonent bi ne ko kulha anta wa ahlu baytik wa sum yowman wastaghfirullah ne yonent bi ne ko lekkal tàndarma bi yow ak sa waa kër waaye nga woor benn fan te jéggalu borom bi tabaaraka wa taala kon ndeke kafaara fi ñu koy defee mooy sëy sëy nag bu ñuy wax sëy waxuñu beej beej ak sëy bokkul mooy nit ki mën na tëdd ak soxnaam foon ko dara génn loolu du nekk kafaara ndax sëy bi ñuy wax day nekk ñaari awra yu daje loolu la lenn ci boroom xam-xam wax am ñu ci yéegal ni bu fekkee dafa def muqaddimaat maanaam tëdd ak soxna si di jon jonjoog moom ba man yu génn ne loolu dañ koy àtte àtteb sëy maanaam daal li ma bëgg a wax mooy kafaara ci sëy rek lay war ki nga xam ni sëy nag soxnaam nag ci bëccëgu weeru koor su fekkoon ni dem na ba timis giy dugg ñuy naan diggante timis jot na walla jotul ne loolu am su boobaa dañ koy aj ci ndax timis jot na walla jotul ala kulli bunt la bu bari ay jafe-jafe te bëgguñoo waxal nit ñi lu leen di indil jafe-jafe mais kon ci sëy daal la kafaara di ware kafaara boobu mooy goreel jaam naam jaam amatul boo mën a jël goreel ko kon li ci topp mooy woor ñaari weer yu toftaloo siyaamu shahrayni mutataabi ayni ñaar yooyu toftaloo soo wooroon benn weer ba mu jeex ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett dog beneen fan kafaara boobu yàqu na dangay defaat beneen kon ñaari weer yu toftaloo la loolu la boroom xam-xam yi wax bu fekkee ni loolu amul nga leexal juróom benn fukki miskin mooy nag jox leen loo xam ne mën nañ caa lekk ba suur loola mooy lele ñun ko tënk ci boroom xam-xam yenn yi fii ci suñu réew gis nañ ni nit ki kat su fekkee ni am na 1000 francs mën na cee lekk ba suur su fekkee ni lekk gu ñuy togg la 1000 francs mën na ko caa jënd lekk kon bu borom génnee 60 mille moom mooy lexal juróom benn fukki miskin juróom-benn fukki miskin yooyu nag ndax day jël soixante mille bi rek jox ko kenn walla da koy togg woo juróom-benn fukki miskin walla da koy séddale li biir daal mooy juróom-benn fukki miskin la kon seeg délé gi moom moo gën a tënku yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني